jërë ngeen jëf mbokki internet di 313 digital ñu ngi leen nuyu bu baax amaat mbégte dellu si ak yéen euh, ci seen émission bi di face à l'actualité gis ngeen ko euh, démb li nga xam ni xewoon na fële ci euh, Mbàkke mitingo kii di Ousmane Sonko bi kon ay jàppante da caa mujj am moom Serigne Khadim Mbàkke responsable la nekk itam kilifa diine dëkk ci boobule gox moom la ñu rek fas yéene àndal kon ci suñu jotaayu tey bi bu ko defee moom mi nga xam ni. mbir yi ba muy am euh, ci goo xam ci diwaawam diwaanam la xewe woon ndax ñoom kon ñoo doon def mobilisation boobu noonu la ñu daal di koy woo rek fa yéene ànd ci ak moom bu fekkente ni euh, mi ngi ci ligne bi moom Serigne Khady Mbacké di ñu dégg dañu koy nuyu euh, jox ko kàddu gi mu nuyu ak mbokki internet 313 digital moom nag nekkatul gan ci bile chaîne chaque fois dañuy ànd ak moom ci jàngatu bés yi ci actualité nga xam ni moom moo nekk rek di xew ci réew mi Serigne Khady bu fekkente ni yaa ngi déglu ñu ngi lay nuyu bu baax Mbacké di la siyaar waaw maa ngi leen di baara Cheikh Bara mm-hmm. di nuyu waa trois cent treize digital mm-hmm. di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi mm-hmm. di sant Serigne Touba bu baax Xaadim Rasul Ah, nii noonu waa suñ xaari ma ñu fas yéene dugg ci waxtaan bi rek comme ni ma ko junjee sànq euh, ni ki démb fële ci Mbàkke gis nga euh, Ousmane Sonko euh, la mu ni woon dafay ñëw déjà nemmeeku ak ay ñi nga xam ne ay militangam daay yëkkati ab bataaxal muy ay kàddu yoo xam ni fas yéene woon na ko jëmee ci ñoom gis nga la ci mujjee am yëpp moom Ousmane Sonko jaar biiru tubaawam gis nga la mu fa def ci mbooloo ci ci ci ci ay gone yoo xam ni daar nañu ko ak la fa def démb sëñ xaadim li nga nga xam ni mujj na am ci dogal bi préfet jël ci euh, meeting boobu doon am foofu la ci Mbàkke euh, naka ngeen ko euh, jàngatee ci yéen responsable yi xam ne ñu ngi foofu ci Touba ak ci Mbàkke organiser woon ko te waroon fa dalal seen leader bi nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko di président bu Pastef. waaw dañuy masawu ñi nga xam ni. Mhm. yàqule nañ fa. Mhm. muy 500 ak lu mel ni borom station yi nga xamante ni. Mhm. tey dégg naa ñu ne ñi moom ay sénégalais lañ. Mm-hmm. maa ngi leen di masaw bu baax a baax li nga xamante ni moo fa yàqu. Mm-hmm. te di wax ne état wu Sénégal war nañoo jëlaat ay matukaay. Mm-hmm. ak ay ak jëlaat seeni responsabilité ci nit ki bu amee sañ-sañu war a def mbitin wala mu nar a def doxu mbokk. ak bépp programme boo xamante lu jëm ci wàllu politique la. ñu ñu ñu jox leen ay ay ay garde ak ay sécu ñu jox ay sécurité. Mhm. ñu mën a doxal lañ bëgg a doxal moo gën ñu leen ko jéem a xañ. Mhm. parce que Sénégal réew la boo xamante ni. Mhm. jàmm rek moo fi xaj. aw ay xaju fi. ndax réew la moo xamante ne quatorze millions personnes rek moo fi nekk. te li fi ne ñii ay. 17 millions kan lañ ñii ay mbokk lañ. kon nag jàmm rek moo war a dox suñu diggante ak. Euh, pouvoir ak opposition jàmm rek moom la ñu war a dox. Mhm. waaye lii am diggante Mbacke ak Touba. Mhm. man de nekkul ne loo xamante ni lu ma neex la te état bi moom mooy responsable bi parce que buñ fexe woon ba autorisé. Mhm. Euh, marche bi. kon euh, jàpp naa ni li nga xamante ni moom moo am noonu démb loolu loolu du am. parce que gis nañ ne bi mu amee Kër Massar dañ leen autorisé bàyyi leen ñu def li nga moom la ñu war def. kenn ku ci nekk delluwaat sa kër hmm. bañ pare bañ xëyee sax dégg naa dañoo balewaat foofu bam mu set wécc kon nag waroon état wu Sénégal waroon na mën a jëlee ci loolu leçon wane ne ñii duñ ay nit ñu violent ay nit ñu responsable lañ parce que kenn ku ci ne yaa ngi bàyyi ay waajur ñii ñi ngi bàyyi ay soxna ci seeni kër hmm. kon dafa am benn cause bu ñuy xeex mooy cause bi ñuy xeex mooy démocratie lañ bëgg mu am ci réew mi démocratie bi nga xamante ni moom la moom la fi mag ñi bàyyi woon. Mhm. kon buñ sañoon Macky Sall mi nga xamante ni moo fi nekk di njiital réew mu bàyyil ñu ko fi daal ndax comme moom yàlla dogal na li ko fi dese bëreetul mi ngi li fi dese daal rek ay un an trois euh, trois mois rek moo ko fi war a dese ci li ma yaakaar. Mhm. kon war na mën a fexe ba Sénégalais yi am jàmm. su ko defee mu mën a génn ci porte boo xamante ni mooy nekk lu porte bu rafet rafet rafet waaye li nga xamante ne moo am diggante Mbàkke Touba mhm. mm, man état wu Sénégal rek laay wax ne ñoo war a jël seen responsabilité d' accord oh. mais démb est ce que jàppoon ni euh, benn échec xaw na ci am quand même parce que Ousmane Sonko ni mu daan liñ ko xam woon ci euh, genre yi nii mooy day dem ay naataangoom wax moom itam mu yëkkatikaat di wax te gis nañu démb lu mel noonu amu ca est ce que jàppoon ni euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der la ñu bëggoon ci bile meeting mooy empêché ko mujj nañu ko am ci ci boobu le meeting donte que Ousmane Sonko xuus na bu dugg ci fi nga xam ni moom moo di Mbàkke. waaw xam nga meeting boo xamante ni dañ ko war a autoriser autoriser wuñ ko kon. Euh, ñoom ñu def wax ne dañ koy dañ koy maintenir def ko. Mhm. kon loolu euh, violence rek lañ wax lañ woote daal ne mooy am waaye mitin moom amul woon démb moom fexe nañ daal ba mbooloo mi yëg ne Ousmane Sonko mi ngi Touba ñëw na Touba aussi tamit julli si àjjuma juma mu ñëwee dem na waa Daaray Kaamil ñaanal nañ ko. Mhm. ñu ubbil ko xabru seex seexul xaddim mi nga xamante ni moom laa yaakaar àdduna alaaxira mu dugg ziyaare fa bim bim ziyaare na sëñ Muntaxa aussi tamit saafonte am moom ba ñoom ñaar déyante nañ waxtaan nañ xam naa ni mun Muntaxa accueillir na ko ci kanamam xar kanamam accueillir bu yaatu bu rafet boo xamante ni sunu xel daal na ci ne lim ko lim bëgg lim bëgg ci. président Sonko suñ borom dana ko def ci moom ci li ma ci li ma yaakaar ne moom mooy xar kanam gu gu naat googu nga xamante ni moom la ko doon xool démb bi mu fa génnee it bi mu taxawee ci buntu bu mag bi nga xamante ni fi la war a génnee xale yi commencé di wax mm-hmm. mu ne leen wax leen jërëjëf Seexul Xaadim moom président Sonko moo ko wax mm-hmm. te aussi tamit bi mu génnee bi mu wàccee bay war a dugg ci jumaa ji it ci yaram ak dalam ak bëggam Seexul Xaadim dafa wax garde yi nga xamante ni ñoom la àndal na na ngeen summi seen dàll te it na ngeen summi seen i mbaxana ndax barab bi day barab bu làpp boo xamante ni. Hmm. ku fi ñëw da nga war a wormaal barab bi noonu la leen ko waxee boobu lépp maa nga ci nag. Hmm. waaye nag euh, ñu gën a bàyyiwaat xel ne Sénégal daal moom benn bopp la. Hmm. te responsable bi état laa koy teg état daal laay jox responsabilité bi nga xamante ni moo xewoon diggante Mbacke ak toba démb parce que takk der yi bu ñu leen leader bi ak ak ak yi. Mhm. kon jàpp naa ni kon ay grenade du fa tàkk. te grenade ya fa tàkk nag moo waral gone yi tamit taxaw riposté wu ba yooyu fa xew yëpp xew fa. waaye ba fa grenade tàkkutoon ñu encadré leen jàpp naa ni danañ wax liñ bëgg a wax dem. Mhm. kon li may wax rek mooy mag président Sonko moom réussir na démb li nga xamante ni moom la bëggoon a am. mooy agsi na ci boulevard bi. Mhm. mbooloom bi nga xamante ni doon nañ ko xaar Mbàkke daja nañu foofa. donte nag yëkkatiwu ay kàddu wax ko. waaye gars yi jëmmam rek lañ bëggoon a gis ndax kàddu yi nga xamante ne mi ngi koy jàllale bu ko hmm. waxee ci internet boole ci télévision yi militants yi fu ñu mën a toll ci àdduna bi ñu ngi koy ñu ngi koy dégg. ñu ngi ko doon dégg. ñu ngi koy dégg waa ñu dégg mboolem loo xamante ne mi ngi koy wax loolu moo tax. Hmm. fu mu a ne ci àdduna bi nit ñi di fa di fa di fa mën a dem. ndax message yi nga xamante ne lancé ko ci anam bi mu bëgg a yoree Sénégal bi mu bëgg a réew mi loolu doy na Sénégalais yi doy na ndaw ñi doy na mag ñi ba tax. amuñ ci moom sago sago sago boo xamante ni fépp foo xam ne président Sonko nekk na fa rek. Mhm. dañuy am xeemteefu gis ko loolu jàpp naa ne moo waral ne démb président Sonko réussir na li nga xamante ni moo taxoon mu doon ñëw ci département bi. d'accord. mais ci loolu parce que gis nañu moom bi muy dugg ak heure bu mu doon dugg fële ca guddi woon na lool bi ñu gisee la nga xam ne moom moo fa doon xew ay jàppante mais teerul moom mu xuus ànd ak ay ñoñam euh, dugg ba la ko ci fekk fekk ko ci mooy gis nañu otoom dañu ko visé euh, dóor ko ba voiture bi toj est-ce que risque yooyu mu doon jël itam euh, moom njiital Pastef ak fi mu toll day mu toll ci politique jamono ji nii war na mu koy jël ak li ci mënoon a am yëpp yëpp ci ay conséquences te terewul mu mu continuer jël risque yi te xamoon na bu baax a baax Euh, am na loo xam ni bu ko bu ko demoon tey mënoon na jur jëye ju ju ju juree loolu yoo xam ni euh, mën nañ ko sax bañ a waaw xam nga moom li mu waxoon. Mhm. ci Kër Massar ne moom tàggu na ay waajuram miraas na boppam. Mm. kon xale yi nga xam ne tey wàcc nañ ci suuf di yor ay xeer di jàmmaarloog ñi nga xamante ay takk der lañ. ni ma gisee ne Sonko noonu la doxee dem mook mook xale yi ñoo bokk benn position mooy xeex ba nga ñoo bokk benn position bu ñuy xeex ci réew mi. Hmm. mooy ne dañoo bëgg a teg lépp mu teg ci aw yoon. te ñoom jàpp naa ne dañoo gis ne. Hmm. Euh, lépp loo xamante ni euh, Macky Sall mi ngi leen koy teg. Hmm. ci loo xamante ci euh, lu àndut ak yoon. ñoom jàpp nañ dañoo war a fexe ba. jaaral li ñuy def ñoom mu jaar ci yoon te ñoom lépp li ñuy def moom gis naa ne ci yoon la président Sonko nag moom mhm. euh, loolu mu def dem noonu ci euh, euh, ba jaar ci biir police yi ñu ñu dóor ko ay lacrymogène ak yooyu mhm. comme ni xale yi yoree ay xeer nekk ci suuf ak ñi yor nekk ci seen oto ñu leen di door ay lacrymogène dafa jàpp ne moom citoyen sénégalais boo xamante ni dafa war a xeex ba li état wu Sénégal bi di leen teg mu teggeeku mhm. dafa bokk xale yi benn position bu xeex moo tax bakkanam la la jël teg ci loxo askan wi askan wi tamit wan ko ne ko doo ñu gën a gore loolu moo waral la démb ni mu doxee mu doxee ko nga xam ne bu fi bakkanam yemoon it mhm. day mel ni quatorze personnes yi nga xamante ni faatu woon nañ ci manifestation bu njëkk ba ñoo ñoom rek ñoo yem daanaka sahit lañ koy jàppee daal kuy xeexal sa réew. Mhm. d' accord mu mu doon euh, risque boo xam ni jëloon na ko démb quand même moom euh, njiital Pastef mais ba tey euh, suñu xaarim ñu gis di continuer que ni arrestation yi nga xam ni ñu ngi koy nemmeeku ci seen côté ba tey mu ngi wéy di continuer est ce que loolu yéen responsable li nga xam ni yéen a fare foofu Touba ci Bawol démb gis nañu euh, wala bërki démb gis nañ taxawaay bu am solo bi ngeen ci am mooy que ni bi ñu jàppee seen coordonnateur bi sëriñ Assane Mbacke ak ki nga xam ni moom moo di sëñ Cheikh Thioro Mbacke mooy sëñ Cheikh Thioro mooy coordonnateur bi du moins kon euh, militant yi taxaw foofu ni àla ik duñu fa jógee te sax bàyyiwuñu ñooñu nga xam ni kon ñoom ñoo di euh, seen ay nit bokk ci Pastef rawatina seen coordonnateur tey ñu gis ni toll ci juróom juróom fukki militant ak juróom-ñaar maanaam 57 militants Pastef yoo xam ni ñi ngi leen téye woon garde à vue yéen ñi nga xam ni yéen a fare foofu ci euh, Bawol tey jii euh, ban taxawaay ngeen ci fas yéene am ak euh, ngeen ci fas yéene am ak seen i ndaw puisque dangeen a jàpp ni xëy na ñoom politique moom moo tax ñu jàpp leen. waa xam nga démb nag li xew. Mhm. dafa am loo xam ñoo xam ne dañ cee rax ñoo xam ne duñ ay militant wu Pastef. Mhm. mooy ñi nga xam ne dañoo saccastré seen champ bi ak total yeeg yooyu ñooñu moom damay jàpp ne euh, nekkul ne ay nit lañ ñoo xam ne dañoo bokk ci parti bi wala xeexal président Sonko moom moo leen moo leen moo leen yëkkati. Hmm. léegi nag euh, ñun suñu force de l'ordre yi yàlla dimbali na leen ci xarañ ci wàllu liggéey ndax démb. bari woon na ay poli ay civil yoo xamante ni ñu ngi woon ci biir. Mhm. ñoom dinañ dinañ ida dinañ identité ñi nga xam ne ñoom ñoo duggoon ci seen sang bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon taal yi nga xam ah, mooy Sonatel beeg. ak mhm. eh, kii baag yooyu ak mhm. eh, ak Total yeeg yooyu. xam naa nag ñu mel noonu lañ jàpp ah, téye leen waaye jàpp ma ne ay responsable politique ak ay militant xanaa sëñ Assane laa ci xam koo xam ne responsable ah, Pastef la. koo xam ne téye nañ ko ci waaye ñeneen ñi nga xamante ni téye nañ leen man yaakaaruma ne ñooñu ah, dañoo nekk ay responsable yoo xamante ni ci Pastef lañ bokk wala ñu nekk ay militant mm-hmm. damaa jàpp ne mooy ñi nga xam ne ñoo doon sacastre ah, ah, seen sang yeeg ak mm-hmm. di di di yàq yu mel noonu ñooñu laa mm-hmm. jàpp ne ñoom la police euh, localisé ba xam ne ñii ñoo ko doon def mu téye leen d'accord ci loolu parce que gis nañu démb moom moo mooy njiiteel Pastef di Ousmane Sonko euh, ci ci ci ci ci ci loolu yow en tant que euh, ku bokk ci euh, ci ci kër gi muy di setu sëñ Fallou nga gis ni démb moom dem na seeti ki nga xam ni moom moo di xalifa Baye Fall di sëñ Modou Mbende Fall mais mu yëkkati ab laafa euh, jox ko ko yëkkati tam jaxas bi mu sol jox ko ko mu doon loo xam ni c'est symbolique yow en tant que tey ji euh, kilifa diine parce que ñu bàyyi euh, ñoom li ñuy jox bi rek la ñuy gis mais yow tey boo ñu doon jàngatal mbir ak itam sëriñ daara yi bind tabax ak kaamil bind bind ko am jekk daaj koy jox loolu yow bi nga ko gisee ban yëg ak ban jàngat nga am ci loolu en tant que moom leader boo xam ni c'est un leader politique ñu koy anam yi nga xam ni ci nitu diine rek lañ ko daan gis tey ji waaw loolu de moom dañ koy rafetlu di ñaan laat xalifa euh, baay Fall suñ borom taxawu ko bu baax te yàggal ko fi lool te ànd ak wér ndax loolu mu defal président Sonko cadeau la boo xam ne mm-hmm. am na signification boo xam ne ëllëg lañ koy mën a xam. Mm-hmm. mais du doon tey jii daal ndax xam naa ni président Sonko ci bëggam diine bëggam Seex Ibra bëggam Seexul Xaddim moo tax lépp loo xamante ni euh, ñëw na Touba di ko fi ut rek buy dem dana ko yóbbaale ndax bëgg gi mu bëgg Cheikh Ibra Fall xam naa ni bokk na ci li tax sëñ bi bi mu demee ba xam ne kii kat dafa bëgg maam Cheikh bi mu ñëwee mu jox ko li nga xamante ni ku ko sol danañ xam ne kii kat ku bëgg ku bëgg Cheikh Ibrahima la te it ku ku nangoo ku nangu ku nangu ku ko digal la. Mm-hmm. nangu ku koy tere la. te loolu mooy doxalinu Baye Fall nangu nangu ku lay digal. nangu ko lay tere loolu mooy Baye Fall te xam naa ne président Sonko foofu la nekk bëgg na ko koy digal lool. Mhm. te bëgg na ku koy tere. léegi nag bu ñu demee ba gis ni kii yor na jikko koy Baye faal kon ñoom am nañ sañ-sañu sañ accueillir ko ci seen biir dalal ko ba pare yëkkati li nga xamante ni mooy seen mooy seen li ñu leen di mën a ràññee muy mhm. muy muy yëre boobu mooy yëre Baye Fall bi mhm. ak ak curu cara bi. ñu ñu ñu solal ko ko ngir nit ñi xam ne ñun kat kii bis ni tey dugal nañ ko ci suñu biir donte yàgg nañ koo dugal seen biir waaye tey jii lañ koy fësal. Mhm. loolu moom mm, loolu laa ci mën a indee ci njàngat lu gàtt rek. Eh, alxuraan it. Mhm. Sonko dey nit koo xam nitu diine la te it nitu alxuraan la ndax démb li ngeen di gis lu manifestation bi di métti métti waxtu yëpp ci waxtu wi la ko julli. Mhm. amul benn waxtu woo xamante ne faat na ko te alxuraan it. Eh, démb it biñ dajee ci jumaa ji ca daade kaamil kamil ba nga xam ne bi suñu mag bi nee ba ni fi jógee ba waxtu wi kaamil yooyu Moustapha ñu ngi koy jàng ba tey ah, ñu gis ne bi mu fa toogee lu mu gàtt gàtt jot na faa jàng lu xaw a lu xaw a gudd lool sax ci kanamu waa daare kamil yëpp kon nga xam ne barkeelu na ci kaamilu Seexul Xadim boobu ñu kon nag buñu buñ bindee ak kaamil ci diggante boobu muy lu gàtt ci mbindum loxo ñu jox ko mu rëy ci moom lool dégg naa kër ki nga xamante ni fa la yeewoo sax daara alxuraan mi ngi fi te njabootam gi ñu ngi jàng hmm. kon ku mel bu fekkente ne man kilifa diine la kooku day gën a nekk kuy gën a dalal sama xel ci sama digganteeg sama diine. Hmm. ñi nga xam ne tey jii dañoo jiite réew mi te seen diine leerut bu baax a baax ndax dañuy dem ay Charlie do ah et aussi tamit euh, buñ toogee ci kilifa diine yi bëgg leen a nax. di jéem a tudd ay baati xasida di ko yàq di jéem a tudd ay aaya alxuraan di ko yàq ñu mel noonu yàlla muccal na ci président Sonko. Mhm. ñun daal am nañ yaakaar ci moom ne bis bu faloo alxuraan dana ñëw te kilifa diine danañ gis gën daa suñ daara yi nga xamante ne jot nañ leen a tëj mat lu mat juróom ñett suñ daara ñu ngi ci kaso yi. Mhm. jàpp naa ne ñu mel noonu danañ mën a mucc te daare alxuraan dana mën a dana taal jàng yi dana gën a mën a yaatu ñun ñi nga xamante ne dañoo féete ci wàllum daar am nañ yaakaar ci moom lool lool lool ne lépp loo xamante ne naqari na ko naqari nañu ko depuis 2012. Mhm. ba tey jii bis bu président Sonko faloo ci lu jëm ci wàllu daara suñu xel dana ci dal lool lool lool parce que bu faloo incha allah ñu ngi koy ñaanal nag. Mhm, d'accord. Euh, ngi suñu xel dana ci dal ñu ngi koy ñaanal suñu xaadim ñu bàyyi la xam naa nga wax rek kàddu gu mujj bu ko defee ñu tàggatoo joxante dig day ba beneen incha allah. waaw maa ngi sant waa 313 digital. Mhm. di leen ñaanal sunu boroom taxawu leen te jàppale leen baax a baax ba site bi nekk euh, télévision ba àdduna bépp di ci mën a jot ci waxtu wum leen soobee mm-hmm. te di leen remercier bu baax a baax ci information yi nga xam ni yéen a ngi koy jëlee ci askan wi di ko joxaat askan wi ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax a baax a baax di wax ne Macky Sall nag moom kudd gi nga xamante euh, kudd gi nga xamante ni moom moo lo bu fekkente ne bëgg na ko ci sunu réew mi lépp ci suñ borom ci loxoom la ko teg aw ayit bu fekkente ne bëgg na ko ci réew mi suñ borom ci loxoom la ko teg kon nag ñi ngi ñaan nag moom ci boppam mu fexe ba jàmm rek am ci sunu biir réew mi ndax kilifa day day day sàmm ay kàddoom ginnaaw bi nga xamante ne waxoon na ni tu def troisième manda xeex ko ci jamonoy Ablaye Wade ba ab ba Ablaye Wade yi sanctionné ko mm-hmm. moom nag dafa gën a nekk ku dëgg dafa dafa dëgër bopp ndaxte euh, ministre de l'intérieur am ministre de la justice am ñoom ñëpp ci partem bi lañ bokk te dañ ko déggal tey ji Sénégal yi bis buñ xoolee ba Macky Sall mii wax ne day def troisième mandat mhm. ba conseil constitutionnel jàllale ko rafet naa njort ci ne bis bu de bis buñ ko ko mayee la Ablaye Ablaye Wade ni mu demee ni mu amee woon démocratie Macky Sall mi bokk bokkut ak Ablaye Wade buñ xalaatee Ablaye Wade ay Macky Sall ay carte moo ko fiy jëlee. Mhm. du fi jug Macky nañ fexe ba empêché ko ba troisième candidature bii moo xam ne mi ngi ci xelam bum ko def bis bu ko defee. Mhm. lépp loo xamante ni am na ci réew mi Macky Sall mooy responsable. d'accord waaw te it na moytu entourage bi nga xam ne. Mhm. li ci ëpp ci Ablaye Wade lañ nekkoon daan jëy Ablaye Wade ba Ablaye Wade daaru tey jii doo toog ba dégg ñu ne Ablaye Wade fenn ci benn rajo. wala ci benn télé wala ci benn jotaay ñu ngi koy jay nag waaw te it du ci am ndam nag bu fekkee daa bëgg troisième mandat du ci am ndam hmm. waaw na dimbale askan wi te respecté sénégalais yi hmm. na vingt ans nag diiran Ablaye Wade di gouverné mi ngi ci nguuru ab Ablaye Wade di di nguuru hmm. bi wàccee moo ko wuutu koo xamante ne nag yaa ngi yaa ngi ci pouvoir pendant vingt ans da nga war a doyal bàyyi askan wi nag ñeneen ñu suwaa keneen nag koo xamante ne doy na leen loolu de laay koy digal hmm. as gor day day day sàmm ay kàddu ah ngeen jëf jërëjëf sëñ Xaadim Mbàkke di ko ziar di ko ndokkeel itam ci weeru màgg wi eh, seen maam Sëriñ Fàllu ñu war a màggal màggalu Kazu Rajab gi le 17 bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal eh, di jox di jaajëfal mbokki internet ñu doon seetaan itam jërë jox jigi daje eh, ci ba beneen yoon ci seen beneen numéro jërë ngeen jëf